barakaatuhu yéen mbokki julli bi yéen mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbàkke moom Sëriñ Basiiru Antaña delsiwaat na ak yéen seen jotaay bi ñuy wax al majlisu suura te muy am dimanche bu jot bu ñetti waxtu ak genn wàll jotee ci seen rajo bi di rajo Xassida Online parce que yéene indiwaat ak yéen ci yeneen tem yoo xamante ne dara du ci génn li sëriñ bi bataleel ginnaaw buñ jëlee nuyoo bi teg ko ci jëwriñi liggéey bi nga xamante ne ci lañ nekk muy daayira bi wala muy rajo bi wala muy télévision bi nga xamante ne mooy seen xasida online ànd ak Touba Monde bi TV di sant ak di gërëm mbokk yi ci yëngatu bu baax a baax bu mu mel ni buñ ci tuddee sëriñ Ibrahima Ndiaye mi jëwriñ ji wala sëriñ Modou Mba Mbay Caapam wala sëriñ Ablaye Diop mel na ni làmbaale ne mbooleem ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir yëpp waaye di nuyu sunu xarit yi nekk ci biir tey nekk ci liggéey bi ku mel ni sëriñ Pape demb ja nekk ca Toscana sëriñ Béye Ba nekk fële ca boori Parma waaye ku mel ni eh, eh, sëriñ waaye ku mel ni sëriñ Mourtada Gueye nekk fële ci Jaba waaye ku mel ni sëriñ Dame Gueye nekk fële ca Vicenza ak mbooleem auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy ñëpp ak sunu xarit di sunu rakk di sunu lépp sëriñ seex mbakki Mbow. kon mu mel ni bokk yi di siyaare bu baaxit eh, sunu wëllëre di sunu xarit di lépp ci noonu te démb rek mu ñëwoon fi daaruma suñu gisante fi ñëw siyaare suñu gisante sëriñ Nango Seck moom it di ko sant ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ne taxawaay boobu rek la am ci yoonu murit taxawaay boobu la am ci liggéeyu Serigne Touba ñu ngi ko siyaare bu baax a baax waaye di siyaare mboolem auditeurs yi bàyyiwuñ kenn dafa mel ni bu ñu tuddee tuuti rek dafa am ñu ñuy bàyyi fekk ni mu ko daan waxee rek man Mahmoudan ñëpp samay xarit lañ ñëpp samay kóllëre lañ ñëpp samay àndandoo lañ sunu boroom ak sëriñ Touba moo ma boole ak ñoom nu nekkandoo kenn ku ci nekk nekk doon sama kóllëre sëriñ xaadim fay ñoom ñoom ñëpp soo tuddee rek faaw nga bàyyi kenn waaye fële ca Amérique soxna Ndey Faatu Mbooj ñoom sëriñ wàkk ñoom ak ñoom ñëpp ak waa Espagne ak waa France ak waa Portugal yëpp sëriñ murid wàdd ñoom mu mel ni mbokk yi ñu sant Mbacke sëriñ Modou Mbaye Thiam mi nga xamante ne liggéey bi bis bu set du bàyyi ma nga ca rek ku demit fa nga koy bàyyi boo dikkit fekk ko ca liggéey bi jaral ko lu ne sëriñ Modou jërëjëf barakallahu yàlla yàlla barkeel liggéey bi yépp siyaareel ma bu baax sëriñ Pape Gueye ñoom ak ñoom ñëpp sëriñ Assane Faye ñoom mu mel bokk yi at mi jeex at nak su jeex war nañ ce taxaw seetlu naam su fekkente ne bis bu nekk la war a kon ñun ñëpp lii atum tubaab dafa mel ni ñoom fañ ko tënkoon at ma jeexee na fa naam bu fekkee du sunu bos waaye kon rekk nu profitoo ci ñaanal bokk yi nga xamante ne liggéey bi ñook ñoom ñoo ko daan ànd nu daan ko bokk di ci yëngutu ku mel ni sëriñ Nara xasida nga xam ne bokk yépp ràññee lañ ko adduna duutu ko fàtte mukk ñu di ko ñaanal yàlla fa mu nekk gënal ko fii mu jóge te am nañ ci yaakaar muy bàq yéegam tëdd waaye noonu it lañ ciy ñaanale sëriñ Moodu Asan Njaay nga xamante ne moo ci mujj te bu jóge fi bu yàggul ci at mi moom itam sunu boroom xaare ko aljanna bàq yëga mu tëdd gënal ko fi mu jóge te amul nañ ci yaakaar moom itam kon di siyaare yëpp xale yi ci nekk di yëngutu ci liggéey bi sëriñ Bas Diop ñoom case na waaye sëriñ mut euh, euh, juuf ñoom ak ñëpp bokk yi ak auditeurs yëpp bàyyiwunu kenn mu mel ni bokk yi at mi bu dee jeex war nañoo def benn taxaw seetlu waxtaane li nu bokk li nu ci war a yokk ak li nu ci wërta yokk li dox ak li doxul li am nga xamante ne waris na ko yokk bu baax ba mu gën a dëgër ak li nga xamante ne waris na koo bàyyi ndax nekkul luy dimbale mbooloon yooyu yëpp nag waris na di ko waxtaane ba kenn ku ci nekk xam fi ngay teg sa tànk kon mu mel ni tey rek dañoo jël benn thème boo xamante ne buñ bëgg a waxtaane la te toujours moom lan daan waxtaane bokk yi muy tuuba almaarusa gi nga xamante ne wax naa ne moom rek lañu sëriñ tuuba bataleel muy sunu dëkku bopp boo xam ne noo ko moomal sunu bopp buñ ko defaree mu defaru buñ ko yàqee yàqal sunu bopp ndax sëriñ bi moom sunu borom may na ko ba noppi kenn mënatu ko ko yàqal mu mel ni bokk yi def nañ ci ay thèmes yu baree baree baree bari gis na ko waxtaane waaye damay wax ne waxtaan du waxtaane mbir rek bàyyi ko noonu mu tëdd du tee dañuy continuer waxtaan wa ndax nun suñ objectif mooy dañuy def ne luñ bëgg dañ ci jàpp ci sunu làmmiñ ba keram nuy gis résultat bu nu gisul résultat rek dañuy continuer di ca wax naam bu fekkoon te mat na ñaar fukki tem wala mat na fanweeri li tax nu wax ko bokk yi dégg ngeen léegi bu dara yëngutootee dégg ngeen kilifa diine yuy wax yu mag yoo xam ne daawuñu wax ba ci mbir yi ci mujj ci at mi jàll dégg ngeen réaction yi ci xalifa sénéral de Mouride jëlal boppam te muy ay décision ferme yi tàmbalee ci sëriñ si fi nelaw taalibe yi fi bàyyi soxna yi ñu fi bàyyi donga yi fi bàyyi xarit yi fi bàyyi même ba ci problème yi am Touba dégg ngeen ne léegi sunu njiit yi ñi yëkkati seen kàddu ñëpp di dégg ne lii lañ wax te nun loolu lañ bëggoon mooy sunu kilifa yi di wax ndax ñoom buñ waxee rek bu doon téeméera buñ ñàkkee fukk yi juróom-ñett fukk yi danañ leen topp kon loolu mu mel ni wax jiñ daan wax yëpp am na ci résultat bu baax ndax loolu ñu doon ñaan suñu kilifa yi ñi ngi koy def di ci sant bu baax sëriñ maam Thierno Darou Manane mu ni su ko ñàkk bañ sant ndax li tax mani ni su ko ñàkk bañ a sant bokk na ci kilifa yi nga xamante ne ñi ngi jël seen kàddu di wax lii nga xamante ne nun moom lañ doon wax te muy luy dimbale taalibe yi te ñoom ni ma ko waxe seen kàddu ñëpp dañ koy diglu bërki dem bit mu def ci réaction bu am solo boo xamante ne ñun ñëpp a koy sant te di ko gërëm di siyaare bu baax sama mag di sama xarit di sama kóllëre sëriñ Moustapha Mbaye Sam sëriñ Maam Thierno barki démb dafa def lu am solo taale otoom këram ñëw ba agsi ci daara yi sëriñ Moustapha Mbaye Sam nuyu ko sargal ko ne ko dara taxuma jog lu dul encouragé ci li ngay def kon mbokk yi mu mel ni nun kàddu yiñ doon yëkkati kàddu yooyu am na ñu koy diglu te am na ñu koy bàyyi xel te dara taxu ko woon a jóg lu dul siyaare sëriñ Moustapha Mbaye Sam sargal ko encouragé ko jox ko doole ne ko lii ngay wax te di ko digle te di ko tare nekk ci daara yi di ci rey sa bopp lii la sëñ Touba digle woon kon sëñ Moustapha Mbaye barakallah loolu la ko sëriñ maam nu wax muy secte bu am solo boo xamante ne adduna duutu ko fàtte bu bukk ndax mënoon na koo woolu ndax ab bem la doomam la rakkam la léppam la mënoon naa jël téléphone ne wool leen ma Moustapha Mbaye mu ñëw fekk ko ci këram mu sant ko ci liggéey boobu ba noppi encouragé ko ci waaye dafa jël tànkam dem fekki ko ca daara ja encouragé ko ci liggéey boobu dolli ko gën koo digal mu gën a góorgóorlu kon loolu la ñuy soxla ci suñ kilifa yi te noonu la ma ko defee ndax bërki bu ma tëgul juróom-ñetti fan woolu na ma këram ma fekk ko tubaaroof dem ñu nuyoo keroog man la wax ma jiite ko timis maa ko jiite timis ca jàkka ja ñu àndandoo julli mu noppi mu ñaanal ma defal ma ay tiraanga ñaanal ma ne ma lii ngeen di def loolu rek lañ bëgg te mooy yoon wi kon barakallahu sëriñ maam Thierno barakallahu sëriñ Moustapha Mbaye kon mu mel ni bokk yi ngir bañ a guddal rek dañuy dellusiwaat ci li nu tax a jóg muy Touba Almaarusa mu mel ni kon liñ doon ñaan kilifa yi te njëkkati ci seen kàddu kon danañ waxaat leneen loo xam ne njariñ la ngir bëgg kilifa yi yëkkati seen kàddu bokk yi fan yi at mi li xew tuuba kenn mësu koo gis ci àdduna te yaakaaroon nañ ne Touba moom du fa am ba mukk danañ ci lim yu xaw a takku bokk yi ci at mi jàll gis nañ ñu rey fa ay xale dagg te seeni cër gis nañ ñu rey fa ay xale dagg te gis nañ ñu rey ay mag dagg te seeni cër gis nañ ñu tëj fa ay xale yu jigéen ci biiru kër di leen wiyoole jàpp nañ fa ay nit ñuy jël ay xale yu jigéen di leen tëj ci seeni biir kër ñuy taxawaalu jàpp nañ fa ay nit ñu jël dorog def ko ci seen biir kër di ko jaay ci biir Tuuba jàpp nañ fa ay nit ñu jàpp suñ kilifa diine yi di leen xas di leen wax wax ju ñaaw di leen foto di leen génn ci internet bi gis nañ nit ne dëkk bi lu neex waay def dafa mel ni dëkk boo xamante ne daal ku bëgg a bon wala nga bëgg a taxawaalu léegi amatul fenn fu la dese fu dul tuubaa kese boroom sareet baa nga ca di def lu ko neex dawalkatu oto baa ngay def lu ko neex commerçant baa ngay def lu ko neex kenn ku ci nekk ci yow la ngay jëfandikoo yaa ngi cay def lu la neex ci biir dëkk bi te kenn neewu la déedéet bokk yi mu mel ni loolu Tuuba taxu ko woon a jóg te du ormay Tuuba kon mu mel ni tey sunu kilifa diine yi war nañoo jógaat sunu njiit yi suñu responsable yi war nañoo jógaat ngir xam ne li nekk ci dëkk bi ëpp na bokk yi démb laa jóge Touba waaye lii may wax ñi nekk biir tuuba ci jamono yii may wax mën nañ ma cee defal seere bu wér ci ne lii may wax lu am la bu tàkkusaan jotee Touba presque duutoo gis jumaa ji ndax poussière ndax pënd bu metti lan moo ko waral mooy taqaay bi ci biir dëkk bi te sareet yi ak fas yi yi nga xamante ne ay jur lañ te waruñoo jaxasoo nit ñi jaxasoo ak nit ñi fenn fu nekk aw fas boo ko takkee cib sareet bu demee ba bëgg a saw day taxaw saw ko que daf koo ittewoo suñu borom ak ko bindee bu taxawee ba bëgg a dem aaju dafay taxaw dem aaju fan la koy def ci digg mbedd mi la koy def bu tolloo woon ak jumaa ja sax te soxla ko def foofa la koy def waaye borom sareet bi du jéem a seet luy setal loola fa la koy bàyyi dem ci liggéeyam poussé àndandoo jóg boo demee gaar bu ndaw la fa nekk ci gerte wala xiyaasu billaa bokk yi kenn mënu koo nettali gerte gi ràkkal ji jiw ji suuf si ba boo xooloon suuf si suuf si dafa ñuul kukk ndax diw sareet yeeg camion yi gaare ci digg tëli yi tëli sax parce que amatu fa te liñ fa defoon léegi suuf la yëpp sóolu na kenn du leen wax waaw bokk yi lu tee commune Touba lu tee kilifay Touba wut benn zone industrielle Touba suuf si yaatu na nañ wut benn zone industrielle ci biti xollikati gerte yi segalkati diw yi jaaykat yi yooyu yëpp ñu yóbbu leen fa nga xam ne bu nit ñi xëyee dañuy jël ay oto tàmbali di daw bi dem foofa buñ liggéeyee ba ngoon jot ñu wàcc ñëw tëdd si ci seen kër yi mais Touba fépp fépp oto munta jaar fenn mbokk yi jali suuf yi ñiy tabax feer bi ci bedd yi yépp menn mbedd moo xam ne mën nga ci jaar ak oto sa oto néewate ngay daw daw yu normal mag moo ci sëf bu àggee këram du liggéey gee ci bu àggee këram du julli bu nawet dikkee rawatina waa mairie Touba lan lay liggéey bokk yi lan mooy njariñam ab terrain bu yaatu ci biti jël ñoo ñépp yóbbu leen fa oto yu ndaw yi transporté ñu jéem a wut yenn yoo xamante ne ñoom ñooy daw ci biir dëkk bi sareet yi ñu génn leen ñoom ñuy daw ci biti di saf ay bagaas du tee danañ am li ñu war a am te du tee dëkk bi dana organisé wu ba ni mu war a jaar mu jaar fa yi dafa mel ni Tuubaa daal mooy dëkk boo xamante ne jàppe nañ ko yërmaande ji kilifa diine yi doon wax ba lu neex waay rek nga ñëw def boo romboon ab sareet léegi boo ne ni ngay dawale mu saaga la wala wax la wax ju ñaaw boo romboon ab oto léegi muy daw oto yi transporté boo ko tuddee mu saaga la ci biir dëkk bi gauche droite fu ne dañ lay doublé te dëkk bi amul ay tali di fel ci gone yi di fel ci mag ñi Touba amul passage pédonale mooy li Italie wax passage pédonale pour nit ñi jaar amu ko nit amul autorité amul aw yoon kaw territoire bi nga xamante ne ci la nit ñi war a jaar borom bitig yi ñu nga génn seen mbaar yi teg seen bagage yi ci ba ci kaw territoire yi bokk yi ci lu ñuy dund ban discipline ban yar bokk yi lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru mais li fi nekk ëpp na li fi nekk ëpp na bokk Tuuba kenn xamatul lu muy nuru kenn xamul lu muy nuru kenn xamu wax dëgg yàlla kenn xamu ko waxoon naa ko ci benn émission nee naa leen dañ koy rusa tudd ci sunu làmmiñ dañ ci am kersa dañ ci am gàcce waaye man de dëkk yi dugg yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp gisuma ci dëkk bu Touba gën a set gisuma ko te Touba waroon a gën a set ci àdduna damaa ñemewut a dëgg-dëgg jaar ci tur ndax dafa méngoo wut ak di tudd Touba ba pare di wax lenn li waaye bokk yi Touba salte na nag de Touba taq na de Touba la fa nekk ëpp na bokk nekk ëpp na kii la fa nekk ëpp na wax dëgg yàlla ku koy xoolal sa bopp ci taqaay ci suuf si ci taqaay ci jaww ji ci taqaay ci environnement bi la fa nekk ëpp na nekk ëpp na bokk yi te wax dëgg yàlla nag manis naa organiser suñu dëkk bi ba mu tegee ci yoon ndax am nan doole ji am nan alal ji am nan matériel bi mais kenn du wax dara man lima ma ci jaaxal mooy sunu sunu njiit yi côté boobu dafa mel ni ndax waxoon naa ko ci benn émission ma ne li ñuy ñaan bokk yi man li may ñaan suñ xalifa yi maanaam ñi nekk ay xalifa seen kër baay nga xam ne Touba mën naa dem ba tege ci seen loxo maa ngi leen di ñaan nañ def na Cheikh Abdou Lahad Mbacké defoon nam daan def nañ ñi def nañuy génn guddi boog wala ñuy génn ginnaaw tàkkusaan yor seen tànk di dox ci mbeddi Tuubaa yi ba gis li ci dëkk bi ba gis li ci mbeddi Tuubaa yi ba gis li ci bokk yi ba xam jaadu na wala jaaduwul nañ sol seenu dàll dox ci mbedd yi ba gis li ci dëkk bul sori xalifa bu ci nekk wëral sa ginnaaw kër rek jot ngay sori bul dem faneen wëral li ci sa ginnaaw kër rek doy na sëkk doo dox sax cinq lii ma lay wax nii ca biir ngay jaar Touba fu ne ñu ngi def ay tëli mais tëli yi amul benn njariñ tëli yu ci bari sax far na sóolu tëli yi amul ay territoire amul ay canal nit ñi lu neex waay def sareet yi ba ci diggu jumaa ja auto transport yi ba ci diggu jumaa ja maanaam amul limite amul fu nit di yam fu la neex nga dugg fu la neex dem kenn du ne dara ndax bokk yi ab dëkk ci nii la war a doxe Touba gii di deux mille dix neuf ndax noonu lañ ko war a seetaane ba deux mille vingt muy continuer di doxe noonu nit ñi duñ leen ko ñi dëkk ci dëkk bi xamuñu leen boo demee ci biir dëkk bi kër goo dugg muy kër gu àggut ab jabaran ci biir kër ga jigéen ñi mënatuñoo am mbubb yu ñu sol mënatuñoo am dàll yu ñu sol mënatuñoo am or bu ñu takk lañ amoon lépp jabar yi nax nañ leen nangu ci lañuy xëy suba di ci xëy ngoon ku jégi ku ci xëy ci liggéeyante bi kër goo ci dugg yaa ngi fa gis ku muuru kuy kaalawu nit ku salte koo xamante ne li muy def ay fitis rek lay def kër yu yéen dëkku yépp ñoom ñoo ci dëkk yeneen yi ci des ñoom ñoo ko am mu mel ni bokk yi baa dëkk la boo xamante ne nit ñi dañ ca war waxuma la nag bokk yi nga dem ci marché yi ba ci armeel yi ba ci faneen nit ñi kenn nosuwul lu neex waay mu def nit ñi kuñ sax de dematuñ bay xalaat sax ne am benn xalaat boo xamante ne nit a ngi faatu ña nga taxaw fee di ko jullee na nit ñi bàyyi seen i itte dem ci nit ñaa ngi sëgg ci alal ji rek ndax Touba commerce bi dafa dox nit ñi tëratuñ dara lu dul alal bokk yi waxoon naa ko ci ay émission yu bari commerçant bi fa nekk di am alal ju bari alal ji muy am rek lay xool waaye xoolul li dëkk bi itteewoo bu xet tey bu ay conteneur wàcc woon fii rek mu xotti ay keesam kees yi bu noppee fa mu ko xottee foofa la koy sànnee du bale du def daan dem jaay jël ab xaalisam def ci poxam biir dëkk bi yépp nit ñi wutkati alal yi jënd nañu ngir lan su demee ba gën a seer nga jaayaan fi ñu toll Touba am na ci ñoo xamante ne ñi ngi dëkk ay quatre cinq kilomètres distance seen digganteeg jumaa ji seen digganteeg jumaa ji am na fi lu mat fanweer ba téeméeri kër yoo xam ne kenn dëkku fi nit a ko jënd téye ko ngir wute ko alal bu demee ba gën a seer mu jaay kër yooya ay jabar ay fitiskat ñoo fay fa dëkk Touba ca kanam ñu ngi ci doon góorgóorlu luñ man làmp yi ñu doon def ba barki dem bokk yi ma ana maire bi moo leen war a accompagner ba tere waar yi ci dëkk bi ñu def ko autoriser nit ñi ay nit dañ leen di yar boo demee ci réew tubaab yi wax naa ko ba tàyyi nee naa leen réew tubaab yi seen gone yi ñoo a dëng suñ gone yi seen mag ñi ñoo gën a dëng suñ mag yi ndax gëmuñu yàlla nit ki mën naa rey boppam léegi mais ay loi tënk na leen ba lu bari ñi nañ teg ay loi yu wér ci biir dëkk bi sareet bi ñu wutal leen ay tableau fii lañ war a dawale fii lañ war a yem fii waruñu ko weesu oto yi fii lañ war a daw fii lañ war a yem waruñu ko weesu ndegam tey waroon naa fekk tey fu takkusaan jotatee fu sam fu fu fu alxames ak àjjuma jotatee penc jumaa ji ñu tëj oto du ci dugg oto du génn nit ñëpp tànk la ñuy doxe boo demee ci ci seen commune yi sax nga xamante ne dara dara nekku fa ci lu baax ay télé ak bu féexlu képp fa nekk oto du ci dugg dañ koy tëj tey pencum jumaa ji waroon nañoo fekk tey li tàmbalee ci kër sëñ Tuubaa yooyu ko wër yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp wutal ko ay barrière fu alxames ak ajjuma jotatee ñu tëj ko oto du dugg oto du génn tànk kese muy dugg ku bëgg a siyaare nit ñépp libre di man di dem cent pour cent mbokk yi mu mel ni yëf yi waris na koo organiser waris na koo waxtaane ndax ëpp na te lii may wax ñi ci nekk ci biir dëkk bi yépp ci jamono yii may wax mën nañ cee def témoin lépp a ngi nii ci biir dëkk bi dëgg la tabax baax na buñ tabaxee ba noppi dañ ko war a saytu këli baax na mais buñ tëlee ba noppi dañ ko war a saytu ndax lépp mooy tax mu am jumtukaay boo xamante ne danañ ko mën a jariñoo sëñ moodu Mbaye Thiam ginnaaw yaa ngi diglu rek seen jotaay bi di su Suura leg leg direct yi day gej lol ndax waxna ko ñing koy jéglu lu mbokk auditeur yépp ndax nga Sénégal mom bo nekké ci sa wetu kilifa mu di la yoni ki di bari leg leg manque yi day bari lol leg leg ngant yi fay bari waye nima leen ko waxé rek seen jotaay bi di su Suura mom du su ko bayyi mukk day continuer rek di dem heure bu nu ko jot joyee nu tok waxtaan ak yeen rek gis na ko def buñ ko deful tamit danañ def émission yoo xam ne bu ci nit ñu ñi munti dugg danañ ko wax xam naa sëñ dugg su fekkente ne tey am na ñu lay diglu rek te tey dañ doon def taxaw seetlu rek ñu woon émission ci li nu weesu ak li nu jublu ak yéen war a bayaat ak yéen war a waxaat ndax ñu am ci ndam su fekkente ne am na kenn koo xamante ne rek bëgg na cee barkeelu mën nga koo bàyyi mu dugg su ko defee ñu àndandoo ba keroog muy jeexal waxtu wi allah bu soob kon suñ sëñ Modou Mbaye Thiam ñu ngi lay duglu ku bëgg a duglu rek ku bëgg a dégg dugg rek nga dugal ko su ko defee nu bokkandoo waxtaan wi ba li des ci waxtu bi yëpp yëpp di jeex mu mel ni kon bokk yi làmp xoolal bërki dem wa njaay tuubaa ca kanam sonne gim sonne ci ne nan def ay garab yu rafet ba dëkk bi mën a nekkaat ville verte dëkk bi mën a am ay garab mën a rafetaat fi mu tey boo jaaree ci yoon wu am na nit ñoo xamante ne ñi ngi tàmbalee dagg barrières yi ngir lam jaarale fa seen marchandise wala ngir bëgg yoon wu gën a gàtt mu mel ni kon tey mairie bi ci boppam <clears throat> war naa taxaw jàppale nit ñi ci dëkk bi wut ay loi wut lu mel ni benn police sécurité bu ndaw ci biir dëkk bi ay ndaw yoo xamante ne leen di regretté di leen fay par weer ñuy topp tëli yi topp dëkk yi topp mbedd mi li nga xam ne dañ ko fi tere ñoom ñu sañ di ko sicaale ca mairie ba pour mairie bi man di ko topp tey demal Italie gi nga xamante ne man moom laa dana a xam tey boo demee ci mairie bi dafay am benn xeetu police boo xamante ne ñoom la ñuy booleeg ñoom ñuy wax li ñuy wax police municipale ak li ñuy wax vigile ñu nekk ci seen suuf nga xamante ne tey boo gaare woon sa oto bi te waroo ko gaare ñoom ñooy jël oto bi jéng ko wala ñu tëj ko wala ñu bindal la benn verbal boo xamante ne da ngay dem ci mairie ba fay ko saxee bi defee noonu soo génne woon sa kër ay bagage képp bëgg koo wacc am na foo xam ne boo ko tegee ci mbedd bi am na lu leen koy signalé xale yaa ngi wër nit ñaa ngi wër danañ ko signalé mais dafa la ci ay verbal yoo xamante ne verbal yi ñu lay bindal dangay fay su ëllëgee du too ko def parce que nit ñi tant que teguñu dara ci seen kaw liñ leen di tere duñ ko baay parce que doomu aadama dafa bëgg lu yomb mais loolu warteefu mairie bi la su fekkente ne ay mairie la yoo xamante ne rek kilifa rek moo leen fi bu nee la defal nga def bu ne la bàyyil nga bàyyi boo amee xaalis dem jox ko amul njariñ mu njariñ bopp nan saytul man damay wax ne Touba dafa war a nekk dëkku royukaay boo ñëwee gis fi diine ju mat sëkk gis fi cet gu mat sëkk ndax cet bokk yi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax waxoon na waxoon na ne ne set mooy genn wàllu gëm yàlla set mooy genn wàllu gëm yàlla xëy nun nan dugg ci suñ béréb bi nga xam ne moom la ñu sëñ Tuubaa baaxe maanaam lan lan ci am ci set lan foos yaa ci mbedd mi ndox mi di tuuru fu ne perméable yi xotti biteel yi xotti kër nit ñi bëggee tuur ndox ci mbedd mi lañ koy def boo demee ci biir dëkk bi ñii xolli gerte ñii segal xool gerte yi léppang ci mbedd mi xatax bi bokk yi bo duggé ci bir mbedd way lépp ci mbedd mi jaay kat yi seen perméable yi ci digg mbedd mi lañuy wacc kenn du balé kenn du raxas kenn du def ko amut amut ba ci digg penc mi bokk yi ba ci digg penc mi ba ci digg penc mi jumaa tubaay am na ñu fay nekk di setal suuf si ci kaw tëli mais loo bale tey boo paree bala ngaa noppi fa nga doon balé kon bokk yi mu melni nak wax dëgg yàlla war na noo fexe ba deux mille vingt bii nuy jubsi si nag ñu seet nu nuy defaat pour defaraat dëkk bi mooy yaraat nit ñi ci ay yu tege ci seen kaw waaye defit nag boroom xam-xam yi tamit nañ organiser ay fataawa ci mbedd mi bu tayee ñu nekk koñu kër sëñ Abdou Lahad bu subaa kooju kër sëñ fàllu bu subaa faneen wut ab daayira boo xam ne xëy na boog day organiser wut seen ay écran ah, teg ko ci digg mbedd mi jàngal jéem a jàngalaat nit ñi sax boog nan la ñuy sete organiser ko ba ko ñu Tuubaa yëpp daj jàngal nit ñi ne nit ki warta yor dara wàcc ko nit ki warta teg dara ci mbedd mi nit ki warta tabax wërta teg suufam wërta teg ay karaw wërta teg nangam su ko defee jëm cee seetaat ba xam ndax dëkk bi dana mën a soppeeku wala du mën a soppeeku te maire bi moom dimbalanu léegi nii wut benn zone industrie boo xamante ne nekk ci biir dëkk bi tey liggéey ci liggéey yu mel noonu jaaykati gerte yi jaaykati raal yi jaaykati ngooñ yi ñu wutal leen bërëb buñ mën a nekk boo xam ne ku ko soxlaati foofa ngay dem jëndi ko yóbbu sa kër mais doo def rek sa buntu kër sa buntu meeg sa buntu kër ci ngay daal di ñog ñogal as mbaar fab la nga bëgg def ko ci mbokk yi danoo war a góorgóorluwaat ci nag ci nit ñi yore dëkk bi ndax man damay wax ne am na kàddu yoo xam ne léeg-léeg soo ko waxee sax day diis waaye kàddu yi mooy dëgg na mbokk yi nun taalubee sëñ Tuubaa yi suuf su sëñ Tuubaa tëdd ndax waris na koo taxal suuf su sëriñ Tuubaa tëdd ndax waris naa taxal suuf soosu déedéet wax naa ko ci émission yu bari ne Tuubaa tey jaadu woon na fuñ ñee allahu akbar boo munta àgg ci jumaa fa nga taxaw ngay taxaw kàbbar muy suuf su set wecc te lu mel nii kat masoon na fi am bokk yi ci émission yu bari lu mel nii masoon na fi am suufu subaa sëñ Touba mas naa woo maam Thierno Birahim ne ko boo demee nañ ko gas suuf sa woon ca kaw nañ ko teg ci suuf te suuf su bees si ci suuf ñu génne teg ko teg ko bu seen man de yaakaar ne tey jii nii bu sëñ Touba del siwaatoon dana ne nañ gasaat suuf Touba jël suuf si ci kaw dugal ko ci biir te jëlaat ci suuf génne ko bu del si woon tey ndax tey jii moom la gën a wax dëgg yàlla tey jii دغ يا دا لي گريمي مو ملني بوك لي نان خام لي نو تاخوك نانو باي خيل لي نو تاخا جوك بوك ني ناني تاخاو سين دك بي اپنا لي 2019 داي ñaanatuñ yàlla mu deux mille vingt jëf ji foofu takk ci ak ñaaw àgg na fa luñ mësta gis ray nit di ay Ndakaaru ay fu ne ko ji ñaata réer ba ci sunu doom sunu sët boobu réeroon ba léegi xamaguñ ci dara ba ci sunu sët bu réeroon ñuy ñaan sunu borom gindi ko te ubbil ay wajuram bañ teg ci seen bët wala ñu xam ci dara muy sëtu sëriñ fàllu boobu boobu boobu boobu boobu réeroon di suñu sët bàyyi suñu doom di suñu lépp yàlla ko seexul xadim gindi bañ bañ bañ tegaat ko bañ ak yeneen yu bare bari ak yeneen yu bare bari léeg-léeg rek ci mbedd ku faatu te duñ xam ne ba bërki dem bi ñëpp ni jaxaw ay nit ñu seen wax dégg bëccëg làqatu wuñ defuñu ci ab station di fellanteeg ñoom ba jël fa xaalis bu bari muy barakaas yi ñuy wax nii léegi mi ngi biir Touba ñu ngi dem ci banque yi ñu ngi dem ci station ñu ngi dem ci pharmacie yi ñu ngi dem biti nga xam ne nëbb dootuñ sax ndax bit bëccëg lañ koy defatuñ ko sax guddi léegi bëccëg lañ koy def bokk ñu mel nañu Abdoulaye ak ñoom nañ woo Safinatu toog ñoom ci benn table ay xale yuy nekk ci biir dëkk bi ñu jëm leen a former waxtaan ak état wut ay sécurité yoo xamante ne nag dañuy wër ci biir dëkk bi béréb yi nga xamee ne jar na ñu def ay caméra yuy filmer ñu def ko ci yi nga xam ne jar na ko ñu def ko ci yi nga xam ne jar na ay nit di fa garde di fa fanaan yor ñu wuleen oto ji fa nekk ñu nekk fa police yi continué fa gis dem sama waaye guddi jotee ñu yor seen oto di wër station yi di wër banque yi di wër nit ñi di wër sécurité yi man gisuma ko gisuma ko du ne amut gisuma ko daaw gisuma

heure bii lañ war a tëdd heure bii lañ war a jóg kon bokk yi seen jotaay bii am na taxaw seetlu ci lu mel nii ñun ñëpp ñu war cee taxaw seetlu ndax li ñuy wax lépp suñu njariñ la buñ ko amoon nun nooy am suñu njariñ nooy am suñu sécurité nooy am lu ñu dimbale teyit lu mën a nekk la teyit lu mën a nekk la bokk yi ndax lii nuy wax nii lu mën a nekk la xam na ne lu mën a nekk la ndax Tuubaa mën nañ ñu ëpp loolu buñ ci defee itte ak pas-pas rek lii nu bëgg dis na ko mën a am itte pas-pas rek la laaj laajul leneen lu dul ak pas-pas jant buñ ci defee itte ak pas-pas rek danañ xam ne jaaykatu gerte bi béréb sàngam la war a xëy pour jaayee ji fa gerte béréb sàngam la war a xëy pour xoolee ji fa gerte béréb sàngam la war a xëy pour segale fa borom saret bi béréb sàngam la war a xëy pour liggéeyee fa borom oto bi béréb sàngam la war a xëy liggéeyee fa béréb sàngam lañ war a bale béréb sàngam lañ war a def waaye béréb sàngam lañ war a teg mbalit war a def nangam bu nit ku nekk xamee la nga war a def rek ñun ñëpp nu noppalu waaye faaw kenn ku nekk xam la nga war a def kon waxoon naa ko muy bu mujj bi waxoon naa ne bokk yi xaw ma say ndax bokk yi sëriñ Tuubaa lim nu bàyyee diis na lool diis na lool man de moo taxoon sax ma ne ndax am nañ jotub def politique ndax am nañ jotub dawali kaat kaat nan am ndax am nañ jotug nekk di ngénte wala nuy céetal ndax am nañ jotug nekk di def ay cant man de question boobu loolu taxoon ma posé ko yi ndax dafa mel ni li nu sëriñ bi bataleel day wax dëgg yàlla yaafuus nañ ci nañ ci lool kon ma yaakaar ne bala kon ñu doon sant dañuy fexe ba li nu sëñ tubaa digaloon ñu jëm cee daw tuuti bala ñu doon politique dañoo waroon a fexe ba li nu sëñ Tuubaa digal ñu jéem cee daw tuuti bala ñu doon def la neen bala ñu doon def la neen ndax liggéey bi kat bari te liñ war a def bari tuuba Tuubaa agee day ku fa dëkk wala nga bokk ci sëñ Tuubaa soo demee ba àgg fa sa yaram dana daw da nga xam ne li nu sën bi batale woon des na lu bare bare koy lu war a liggéey ndax wax naa ko léegi dëkk boo xamante ne boo duggul ci jàkk manoo julli amul fenn foo mën a taxaw ci mbedd bi julli amoo sécurité booy dox oto mën naa dal ci sa kaw sareet mën naa dal ci sa kaw guddi mënis na laa mënis na laa rey yaag say njaboot bokk yi mel noonu te nekk fa ku ci bokk wala nga bokk ci dereti sëriñ Touba aw ma yaakaar ci ne da am xel mu dal dëgg dëgg dëgg pour mën a nelaw ba yàndoor parce que dangay xam ne liggéey bi des na nag li nu sëriñ bi batale des na naam bu fekkee suñ kilifa yi jàmbaar la waaye li nu defee des na kon mu mel ni waris naa jàppale ki fi nekk muy Cheikh Mouhamadul taxa bokk yi jege ñëpp yërëm ñëpp bëggal ñépp jàmm kon waris na koo dimbale nag ba sombi yi muy sombi alal ju bari ji muy def ci biir Touba yëpp mu nekk alal joo xam ne bu noppee nag ban defar ko ba noppi nu man koo jariñoo waaye bu ñu continuer ci méthode bii de ndax bu nu ko bàyyilee bu noppee dis na ko mën a jariñoo ndax des na luñ ñu war a def bokk ndax kenn ku ci xam fooy teg sa tànk amut ba ci liñ tuddee diine sax gis nga ko ñàkk organisé gi ci nekk ba li ñuy tudde diine muy cant yi da ngay gis koy cant tegi rajoom wéré xe wéréréréréri ba bët ab malaata ci sa wét nelaw ab hôpital ci sa wét nit ku tumuraanke nga fa nangam ak nangam yu bari nga tak say radio widd ba bu sës di yuxu ba bët set ci ay walafal ay talif ay wax yo xamantene da lu dara lu dul bëgg nit ñi tok ci baas ba génn seen alal ci la bokku yi amna heure bo xamantene nit ñi dañoo wara dal noppalu su ko defee bu ñu mën julli fajar waaye nit koo xam ne ñu ngi takk rajo tiimale ko sa fenêtre tiimale ko sa néeg muy fanaanee bilbel yi munoo nelaw ba fajar amaana bu fajar di bëgg a jot ci ngay door a tàmbalee nelaw boo muy tut mën ngaa jël fajar yi bokk yi fi nekk nan ko waxtaane nag waaw li fi nekk nan ko waxtaane fexe ba wut ay changement fexe ba wut ay soppeeku te ñun ñëpp li may wax nag bu leen yaakaar ne kilifa yi rek ñoo ko moom donga yi ci lañ ndax yéen yéenay sëriñ yéen yéenay sëriñ Touba si alaaj suñu alaaji baara daan ko wax li fi nekk lépp yéen kon nag dëkku sëñ Touba bi yéen kilifa yi yéen a ci yam seen xalaat yi ngeen am ci bitti seen xalaat yi ngeen yare li ngeen gis ci bitti mu rafet li ngeen gis jéem leen a organisé wu te waxtaan ci seen biir nu xool nan lañuy def ba lenn lu nekk nu am ci solution ndax ku ne ci nga bokk Touba ñëpp a ci yam bokk yi ñun ñëpp a ci yam kon kenn ku ci nekk nag na jéema a wut solution ngir nu mën a dund dund goo xamante ne dund gu tranquille lay doon bokk yu xoola màkk gii rek wax dëgg yàlla ni mel dal na xelum ñu baree bari tey fi mu tollu place fi ngay mu fees dell ak or bu la neexoon nga bàyyi ko mu fanaanee ubbeeku bu bët set kenn du ca dugg sàcc kenn du ci dugg sàcc boo jaaree ci mbedd yéen ñëpp gis ngeen aj li muy xumb xumb li nit ñi bari bari bari bari bari ñaare daanaka duñ aj ba noppi ne nañ bale poubelle yi ci mbedd mi fu nit ki war a sànni la mi sànni fu nit ki war a tuur la muy tuur lu aj gi bari bari bari nit buñ ajee ba noppi doo dégg ñu ne maakaa ngi woote am mbale doo ko dégg kenn ku ci nekk la nga war a sànni xam nga fa ko war a sànni te pourtant dajale nañ sénégalais bi nga xamante ne du def loolu këram dajale pakistan bi dajale italien bi dajale français bi dajale anglais bi dajale espagnol bi dajale guinéen bi dajale ki dëkk Touba dajale ki dëkk Darou Mouhty ki dëkk Dakar ñoom ñëpp màkk la ñuy daje waaye la ngay def Touba doo ko def boo demee màkk dañ lay xamal carrément ne lii moom dëkk bi duñ ko fi def doo ko fa def kon niñ leen ko xamale ba nañuy organiser woo foofa nun tam mënees nañoo organiser wu Touba ba bu màggalu Touba dikkee duñ ne nañ buub dëkk bi buñ màggalee ba noppi duñ ne nañ buub dëkk bi ndax fekk na dëkk bi toujours propre toujours set fekk nañ dëkk waaye loolu nag bokk yi ay nit ñu dogu ñu am ak dogu ñoo mën a organiser dikk taxaw ne Touba lii leen ci bëgg bëggatuñ dëkk bi dàq kon daal xam naa ne seen jataay bi di Almajlisu Suura lii la amoon ci lu leen doon andil ci seen waxtaan wi di ko ànd ak mbokki auditeurs yëpp di jéggulu it ñëpp ñoo xamante ne rek bëggoon nañ cee joxe seen kàddu te xëy na waxtu wi ak machine yi xam nga machine moom ni muy demee waaye wax naa ko nag ci lay tëj rek yéen ñëpp yéen taalibé sëñ Tuubaa yëpp yéen ñuy diglu rajo Xassida Online ci àdduna bi yëpp ñaan leen rajo bi rek li ñuy lijjanti kayit yëpp lijjanti ba mu nekk FM bu boobaa ci téléphone gi gën a ndax da jël sa téléphone rek téléphoné doo nekk di jaar ci ay Skype wala ay nangam ak bu boobaa da ngay jël sa téléphone rek téléphoné dugg ci rajo bi ñaan leen kayit yi li ñuy lijjantiku sëñ Modou mbay di ci sonn guddeeg bëccëg di ci daw jàpp leen ci ci seen doole jàpp leen ci seen alal jàpp leen ci ci seenum xel jàpp leen ci ci seen pas-pas jàpp leen ci waaye seenum ñaan ndax ñaan man na lu ne su ko defee bu yooyu yëpp lijjanti ko ba télévision bi dugg ci télévision yi Sénégal yi euh, rajo bi dugg ci rajo yi FM yéeg yëpp su ko defee bu boobaa émission yi ngeen participer ci lu yomb la ndax sa téléphone ngay jël ci sa kër gi rek woote wax li nga bëgg wax lépp say soxla say it yëpp te ñu ngi ci kon yéen ñëpp ñaan leen ci sëñ Modou Mbaye yàlla ak sëriñ tuba jàppale ko ci bënam ko bëggee mu amee ko noona di leen wax ne leen seen jataay bi daal majlisu suura ngeen doon ko ànd ak seen mbokkum taalibi mahmoudan moom sëriñ basiru antañang xam naa bi fii la koy tënke waaye di nuyu auditoriap yépp ni ma ko doon waxe kuñ tudd sa tur kuñ tudd sa tur yéen ñëpp yéen a ngi ci sunum xel noo ngi ci seenum xel noo ngi leen di bàyyi xel ndax lii su doxee tey ba aksi fii rek yéen rek la du keneen ndax bu ngeen ñu doon bu ngeen ñu doon bu ngeen ñu doon di diglu it duñ wax bu fekkante ne du ngeen ñu diglu du ñu wax bu fekkante ne buñ waxee ba noppi du ngeen jëfandikoo li ñu wax du ñu wax ndax wax ñaar yooyu yëpp da ci am solo waaye yàlla na nañu ba yéen ngi diglu li ñuy wax li ñuy wax it yéen yéen a ngi koy jëfe yéen ñi koy dégg yéen a ngi koy jëfe ñu ñaan suñu kàddu gi àgg ci ñëpp ñëpp di ko dégg te xam ne defar dëkk bi defar Touba defar li nu sëñ Touba bàyyee moom rek moom tax a jóg di ñaan at miinu nu jëm même bu fekkee du sunum at atum tubaab la yal na nu ci serigne touba defal ay xéewal defal nu ci wërseuk defal nu ci barke kenn ku ci nek li nga bëgg ya ko xam yal na ko serigne touba defal bam nek at mu sedd guyu ci ñëpp nek atum jàmm nekk atum xéewal nekkum atum mbégte waye nek at mi nga xamantene it kenn ku ci nek la nga bëgg suñu borom dana la ko ci lijjanti ba tek ko ci sa loxo te muy nek lu la jik di nek sa jik laaj seen jotaay bi dal ci sura ngeen di ko ànd ak seen mbokum taalu mahmoudal mom serigne fi lay tënkee waxtaan wi ba dimanche ji di ñëw incha allah bu ñetti waxtu genn walu jotee ci seen rajo bi di rajo xasida nay di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëñ Ablaye sëñ Ablaye joom ñom sëñ Ibrahima ñom ñom ñëpp bàyyiwuñ kenn rek di wax wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala أكل أراضي عليهم كالسماوات وقلبك